sincèrement ils sont nombreux dans le monde bu il est assez intelligent ils sont aussi bien dans la dimension philosophique dans la dimension spirituelle dans la dimension thérapeutique am nga xam ci malheureusement euh, donc aujourd'hui il n'y a pas une définition juridique du terme on l'a pas consacré une définition déjà les problème c'est un problème qu'on ne consacre pas juridiquement un terme euh, aujourd'hui le Sénégal est un terreau vraiment fertile maanaam souffle souffle bien, dans une sous suuf su nangu la bi euh, basé je disais il y a pas un deux mois que le Sénégal compte aujourd'hui près de 87. sectes. donc 81, on les a dénombrés waaw lii du ñu la bi nga xam ne dañ donc euh, dinaa si ñëw léegi naa leen sitil euh, secte fi nekk ak lañ fiy donc lan moo rendre possible cette présence là des sectes ici au Sénégal je disais que déjà il y a un grand boulevard juridique bi nga ko c'est-à-dire que nous, dans la législation on ne règle pas le problème des sectes on ne règle pas le problème de la foi et des croyances au contraire déjà il y a deux éléments sur biir constitution qui donne libre cours secte yu bëri ñëw taxaw fi Sénégal d'abord fàttaliku leen les droits de l'homme les droits de l'homme droits de l'homme article 10 mooy wax nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses ses croyances ses dogmes etc. et cetera donc mbiru pas-pas lay wax te ñu doon le droit de l'homme boobu dañ ko insérer sur une préambule constitution et là, c'est déjà dangereux donc euh, aujourd'hui les droits de l'homme sont très évolutif moom mu ngi suñu constitution Sénégal moo proclamé ni dafa carrément à tout ce que dit les droits de l'homme ma wax leen nag ne leen mbiru góor jigéen ak euh, yu bëree bëri aujourd'hui ay réalité dans la société occidentale prox ndollam li koy may mu mën a am légitimité Sénégal fii mu ngi si droit de l'homme déjà parce que droit de l'homme bu leen fàtte ni euh, fondation kese bu leen xaar di gis ne amul cinq immeuble rek affaire du immeuble non non non ba ñu defee fondation cinq immeuble dañu prévoir ne cinq immeuble la donc nga gis ko ñàkk ko gis problème de patience kese la problème de temps la avec un peu de temps mu ngi ñëw droit de boobu nag may fàttali chaque fois ñu si yoon nekku si droit de l'homme 1948 la ko gars yi signé woon bañ koy signé ñun Sénégal moomul woon boppam amuñu sax indépendance en réalité euh, kenn woowuñu woon pays signataires yi ils étaient vraiment 50 et quelques ans 53, 54 pays ñoo ko signé ba ñu ont signé waxuñu woon sax le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes donc droit de l'homme boobu sincèrement au Sénégal lu ci yoonam ba ñu koy dugal suñu préambule constitution di ko jox benn valeur euh, bu extraordinaire même parce que valeur bii il faut parce que traité là. donc ma je ni kon dans la charte des droits de l'homme il y a prof ndol bi bien mais ne de droit secte au Sénégal muy benn ñaareel bi mooy la laïcité bi fa la laïcité bañ koy créer dafa am lu taxoon ni créer ko bañ koy créé ko pour faire spécialement dîner. donc le Sénégal étant héritier de cette France là aujourd'hui nous sommes à notre mun naa nous sommes à notre neuvième république ndax en 1960 déjà nous commençons commencé avec sixième république Donc, on a on a on a encaissé et vécu toute la législation qui est passée à travers les républiques françaises république 1 république 2 république 3 république 4 république 5 plus la république de 59 la république la fédération du Mali plus la république de 63 la république du Sénégal donc nous, nous sommes héritières totales et, et, fondamentales de l'histoire euh, juridique et politique française. Et c'est par cette constitution-là qui ne donne pas de place à Dieu dans la cité. qu'on Constitution Sénégal. Donc cette constitution-là, elle facilite euh, nous puissions gagner yalla ci dëkk bi war naan sànq na leen am na fi ay dëkk si àdduna bi yoo constitution ñu fa bind man dama doon rêver Sénégal ñu am constitution bu au nom de Dieu devant Dieu et et et en présence des hommes le peuple sénégalais souverain déclare. mais pourquoi dans la prise en compte de ce qu'on appelle la charte fondamentale parce que il faut tamit compte tamit la charte fondamentale d'un pays manam li nga xam constitution de base de moy li nga xam régler les relations entre les hommes da refléter cette histoire refléter fi dem en fait institution yi ñu bëgg mu am ci dëkk bi ak yenn relation yu bëgg institution yi am ñun suñu constitution fi Sénégal elle reflète réellement réellement elle reflète l'histoire française ak son mépris face à la religion chrétienne léegi la après a retenu un nouveau combat contre l'islam lii dañ ko war xam et cette liste là est marquée dans notre constitution tous les présidents sénégalais qui sont passés par ici dëggantaan laïcité boobu moom c'est de manière vraiment ñenn ñi c'est des francs-maçons duñ ko c'est des c'est des français euh, am ñi nga xam ne ñoom ñooy saay monde bi te secte le sionisme sionisme benn secte la secte parce que bokk c'est un secte wala boog c'est une secte une secte bi nga xam ne euh, mu ngi juddu ci kooku ñuy wax Théodore Herz. Théodore Herz amal créé en 1897.

yon ci yàlla Moussa dafa wax yahuti na leen nañu eere lu ëpp ñaari junney at dañoo war a xaar ki nga xam ne mooy le messi le messi mooy war a delloo seen suuf ñoom ba instant ñëwee nanguñu si le messi ñoom instant bi ñu ngi xaar le messi maanaam les vrais juifs orthodoxes xam nañ ñoom xam nañ ni waruñu am terre tant que le messi ñëwul donc ces juifs là ñu ngi Europe éparpillés ñoom demuñu Israël Israël c'est un grand mensonge bu ñu teg si àdduna bi donc Hertz 1887 la théorisé théorème ni xamoon ñi amoon nag ñi amoon trois destinations yu ciblées Argentine Afrique du Sud ak Palestine ne ñetti dëkk yi lañu ñu war a dem jënd fa ay terre yu bëri bëri pour dem établir foofu lii moo nekkoon le projet sioniste projet bi nag ba ñu xoolee Argentine sax ñu doxul ba ñu Afrique du Sud dafa am foofu lu rëy rëy lu fa xew Afrique du Sud dañ koo xool découvrir benn affaire bu rëy bu ñuy wax les mines de Kimberley xaw ma nag xam ngeen mine yooyu Kimberley benn gox la fële ci Afrique du Sud gas nañ fa pax bi nga amul pax bu tolloog moom ci àdduna Kimberley les sionistes ñoo jënd terrain bi di exploiter le diamant jox ko benn entreprise bi ñuy wax De Beers De Beers am le monopole sur la vente du diamant en Europe ñu exploité ko de 1898 ba 1914 euh, les juifs exploitaient la mine de Kimberley cette mine là était riche en diamants. nous avons gagné fa deux tonnes tonnes là, de waxuma kilo de deux tonnes de diamants. la avons gagné ci Kimberley ce moo nekk la manne financière bi nga xam ne ñiy sioniste ci basé wu pour mettre en œuvre ce plan le plan c'était quoi c'est d'avoir une terre en Palestine les juifs même les sionistes ont utilisé des chèques les sous-marins allemands, il y a beaucoup de choses qui sont L'Empire britannique, en 1906 déjà, fait qu'il était KO par les sous-marins. Dans le ils ont déployé de l'argent pour réanimer l'affaire. Donc, il y, avait, il y a eu beaucoup d'argent qui tourne autour de presque 20 milliards de dollars. Les sionistes ont placé de part et d'autre pour guerre pour nous dag pour euh, automobile dès une bonne fois pour toutes pour que nous enfin commencer cette opération d'achat de terre à wàllu Palestine pour me préparer le futur état israélien parce que lii ils l'ont planifié ay ati ati at donc euh, lii C'est si la ñu dindi la en 1922 avec euh, le traité de Lausanne des ñu Suisse ba 1924 anglais ils ont ils ont insisté parce que en Inde et dans beaucoup d'autres pays les musulmans commençaient à se reconnaître par rapport au xalif le xalif su waxoon fële C'est Istanbul day résonné si monde bi ñëpp alamul islam yi ñëpp ba azar Égypte ñëpp ñëpp ay taxaw déglu ne mais qu'est-ce que le khalife a dit parce que l'islam avait un responsable les anglais ont su que mission bi ñu bëgg am ñun ci ci damm euh, pour xeex mbir li ñu bëgg xeex franchement euh, il faut ñu dindi il faut ñu dindi islam il faut ñu dindi responsabilité islam li mo nekkoon la raison euh, de cette guerre li parenthèse la woon rek ni rappeler histoire donc aujourd'hui on parlait beaucoup plus des, des sectes. Effectivement, si on secte c'est secte là, ko Mais mais y a des sectes beaucoup plus graves filles au Sénégal il y a presque 80 sectes au Sénégal qui sont établies qui évoluent ici au Sénégal euh, pourquoi parce qu'il n'y a pas de législation en matière de sectes filles au Sénégal Pour même de de France la commission il y a eu une, commission parlementaire l'Assemblée Assemblée nationale pour faire un sur l'état des lieux des sectes en France ils l'ont fait. Ils l'ont fait. L'Union européenne, depuis 1986, ils ont commencé à réfléchir sur la prolifération des sectes. Mais pourquoi sectes Il faut nous sectes là, nous faisons, lu ñuy doxal lan la ñuy yëngatu ak impact Nous avons am waaye nous, ñi nga xam faire inquiété sur ces sectes là di xool une prolifération mourir. Nous ñu commission parlementaire gëstu ko en France la direction en charge du renseignement militaire fait top tous les sectes on les a classifiés en groupes. Des sectes de classe 1, moi, ils comptent moins de 50 membres. Des sectes de deuxième niveau, ils ont entre 50 et 200 membres. Des sectes entre 200 euh, et 1000 membres. Les sectes entre 1000 et 5000 membres. Les sectes entre 5000 et 10 000 membres. surtout les sectes de plus de 10 000 membres. Donc, lui, c'est des, des réalités. Nous top avec des tables de bord. Des sectes pour nous, nous sommes et nous def. Nous, au Sénégal, du réel l'islam réewu croyant entre musulmans et chrétiens. ñoo fi croyant fi nek lañu secte si ñun la défavorable lu bëri xam la euh, l'église du corps du Christ ñu fi Sénégal ñu fi Dakar ñom secte bu doy war dañuy obligé sa ay membres ñu lire journal ak déglu soleil ni Facebook Facebook lu grave parce qu'ils veulent pas les informer ñu yew bëgguñu ñu xam li xew bëgguñu kenn génne leen ci manipulation bi leen dugal attention hein, ces sectes là sont très forts en manipulation attention bu kenn yaakaar def si rëcc de ku ci rëcc xéewalu yàlla kese la ak tawfiixam du sa njàmbaar du sa mënin du sa garaawaay wallahi azim ay mbër yu rëy ay grand intellectuel këf nañ leen dugal ci bi secte yooyu ñii ci ay wàllu philosophie ñii ci wàllu ay faj ñii ci wàllu ay soxlaak Oh, ils ont beaucoup de manières. Ils font du fétichisme, ils font des prières. Il y a beaucoup de choses qui Mais cette église-là, l'église du corps du Christ, New York Tree of Life, mais elle est née en Russie. Ils exigent de chaque membre un dixième et revenu. Un dixième et revenu. C'est obligatoire. On t'oblige de te séparer de tes parents. wartoo dem sa famille da nga war ak parce que a parce que nous avons reçu la lumière ñun comme ñu am lumière wala dëkk ñi amuñu lumière et il te coupe du monde Sénégal suñu ay suñu ay ñoo dugg si suñu alal ko versé bu ay mbokk bu mais qu'est-ce qu'on va dire attention attention secte Osho, Osho, Ocho secte bi à foire foire

araamul yëpp c'est question de c'est des bienfaits maanaam sa sa sa mbir la bi xam ne c'est des c'est des principes ay mbir la yàlla sa borom may borom bi moo la ko may bu nga ko def soit yoo daal bëggal yàlla rek loolu ko c'est l'essentiel parce que mbir yi xol la mais ay juit fii ñu ngi am xalaat bi na ay affaire bi yàlla xool lay xool du xool ay jëf ak nangam nangam c'est une secte hein, qui est là au Sénégal naa leen ils sont là au Sénégal depuis 2007 amaguñ nag membre yu bëri mais xam naa si la ñu jëm ndax fii nit ñi ñu si bëri dof yi dof yi fi bëri ku leen yeewi la ñuy wër ku leen koy yombalal leen affaire bi gongo xam nañ Sénégalais yi Sénégal lañ dëkk xam nañ nu mu demee mais yamu si ñoom children of God ñu wax les enfants du les enfants de Dieu mais ñu ngi fii Grand Dakar kër lañ fa luy ñu ngi xëcc gaay di financer ay études ay ay ay sénégalais di leen may xaalis mais lii c'est extraordinaire les mormons waaw Abdou Ndiadé les mormons le temple du peuple mais ils font suicider les gens parce que dañoo gëm ni y a des extraterrestres yoo war a ñëw jël si leen il faut ñu rey seen bopp seen esprit dem fekk di leen maanaam la affaire nag le temple du peuple tamit est ici à Dakar ah le temple du peuple est ici à Dakar loolu tamit attention moo tax naa dama leen di jox secte yi xam ne ils sont là parce que ñu leen di gëstu ñu leen di xool di xam suñu nekk le temple du peuple est présent à Dakar révérend Jones sa histoire di def di xawul histoire xam nañ le temple du peuple lu mu def États-Unis loolu bu ñu ñëwee Sénégal ñun fa lañ jëm l' église d'euthanasia église d'euthanasia mu ngi Sacré-Cœur fii. salanteelu Sukuyo Mahikari Sukuyo Mahikari tamit c'est secte l'homme tamit mais l'utilise d'euthanasia ñu wax mo gëna am solo ñom dañoo wax ni y a trop de gens sur terre manam aduna bi dafa bari lool ay doomu adama et que kenn ku nekk bépp membre de l'église su mënee rey benn nit très bien bu mënee rey ñaar moo ti bu mënee rey ñett gongo bu mënee rey ñent nag assuré lañ ko yow am nga paradis mais imagine toi une pensée qui est adossée sur ce principe là li muy wax ni wallahi azim créé yow ma ko de da leen gëstu ko secte yëpp ils sont sur internet ñu ngi fii à Sacré-Cœur ñoom it amaguñ fi ay amaguñ fi matagul cinq cent membre de bëgg naa ko gëstu nag waaye ma pa mënuma dugg si biir kër gi jëm naa fa dugg ba sonn mënuma ko dugg et ñun li ma man on a des services de renseignement qui sont très très très très forts xam sëriñ yëpp dañ fay dugg kër sëriñ yëpp laa wax de yëpp xalif généraux ils sont sous surveillance l'état surveille xalif généraux L'État surveille bay surveille mosquées yi nga xamné ne ibaadu yi ñoo ko jiite ngi koy wax tay la police sénégalaise surveille toutes les mosquées yu classé étiquette wahhabite dañoy affecté ben agent de police ne ko yow del def def fa chaque jour dañu xol li fa xew ak lu fa am mais c'est extraordinaire L'État bu amé moyen bu mëna topé les les mosquées imam yi tous les xalifes généraux mais lan moo ko bu dem gëstul ñu sectes yi nga xamné elles ont des impacts très significatifs déjà sur la société déjà sur la cohésion sociale et même sur l'économie du Sénégal loolu daa si les femmes ont impact sur l'économie euh, les secteurs suñu ñëwee Sénégal ils se constituent en association ñoom ñëpp pas association la loi sur les associations daf leen défiscaliser déjà duñu fay impôt muy ben. il recueille des cotisations setti na dañoo am lu doy waar ñuy def xool dama koy xool kaaw Sukiyo Mahikari ñoom tamit ñu ngi fii tamit montagne Sacré-Cœur Sacré-Cœur trois lañu nekk Sukiyo Mahikari dañu gëm lo tal sen nak ils sont très nombreux ëpp nañ fi 3000 de si Sénégal fi ëpp 3000 ñi war leen gëstu baaxa baax a c'est la lumière la vérité donc pour avoir la lumière il faut ngay sétal sa bop nooy setalee sa bop da ngay fay chaque péché da ngay fay ba paré tu payes en devise chaque péché égal fay manam euro wala dollar chaque péché. ma jox leen ma jox chiffre cassé, entre 2012 2015 trois années kese. Sukio a pu collecter près de 200 millions de francs CFA. Imagine-toi, 200 millions de francs CFA. Lui, l'État du Sénégal gagnerait à la fiscaliser. Pourquoi nous faisons de recueillir des offrandes avec des fausses bakar Nous avons besoin de celles-là, de Sabopou, de Angese Khaïs Gaï. Ils sont là. Ils sont là. Soukyo, Mahikari, tout. Nous vivons avec ça. Et tant d'autres, nous avons fait l'imnip mais je na si def article dama dama dama dis je ferai un article exhaustif Nous ñep ak à adresse ak lepp ba balancer mu nekk public ku nekk ku jël comme ça euh, euh, ni jël su responsabilité ci lu war def ndax quand le droit déjà ne définit pas ce qu'est une secte quand notre législation euh, ne contrôle pas pourtant la législation fait, elle contrôle les partis politiques pourquoi ni contrôler les partis politiques de contrôler euh, les ONG et fondations parce que du contrôler on les contrôle pas